particuliers avec les professionnels. Si vous voulez le professionnalisme, le confort, la qualité et la sécurité, venez voir notre agence immobilière Prévision Immo. Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de Abib fort. L'agence Prévision Immo est focalisée sur deux domaines, à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière. Pour la transaction immobilière, il y a la location, la vente et l'achat. Concernant la promotion immobilière, l'entreprise sera le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le réalisateur du projet. ba risque koy ñun defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix pour Mades le mouvement des acteurs de développement du Sénégal ce que nit dañu ma xam si handicapé yi ma jité waye formation yi def si madès la ka def ak AFAO association des femmes de l'Afrique de l'Ouest parce que ñoo formé ba am diplôme ba mën di formé waat yeneen groupement tey dañoo ñëw fii di formé ay groupement eh, si turu madame Aïssatou Fall Pierre Apa Ojis France di partenaire mu ko formel dans la ville de Thiès sept groupement féminin mu nekk lu rare parce que souvent Sénégal dañuy def politique boo xamante ne politique gu jëriñ sa bopp ak sa poche bopp mais doo xalaat askan bi mu dafa ñëw def une politique de développement rendre les femmes autonomes parce que tey boo former la femme sur les céréales locales ou bien sur la transformation des fruits et légumes ëllëg dina am poche boppam am métier boppam mën a defal boppam kon moom politique am day promouvoir l'autonomisation des femmes ñu jéem a Sénégal ni muy développé parce que président Macky bi mu ñëw li mu njëkk a teg mooy le PSE e. te xool nañ ni Sénégal mënut a am émergence sans le développement inclusif si la xalaatee femmes handicapées yi xalaat les couches vulnérables xalaat ñëpp parce que formation yi bëri nañu Thiès mais mu ba tànn ñun en tant que femme handicapée ñu ñëw di former kon bàyyi na xel. li président Macky wax ñu lutte contre les inégalités sociales kon ñun looloo ñu fi gën a indi tey ñu ñëw former groupement te yemul fii rek na am sept groupement ñu formé waat dans la ville de Thiès. lan ngeen leen di former. ñu ngi leen di former si céréales locales te boo nee céréales locales am na cinq produit d' abord muy farine bi di sukuf bi sànqal caagri araw jare yooyu yëpp parce que. céréales locales produits yëpp dañ ko si am cinq produits ndax boo amulee sunguf mënoo am araw mënoo am cere mënoo am caabi mais sànqal bi rek moo nekk li nga xam te ni da nga koy gar loolu sunguf te du yem fii rek. <laughs> Hmm.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 mooy ki initiative bi ki ko ki ko ki ko créé muy kay Aïssatou Fall bi nga xam ne mi ngi Europe nekk rak ci président Amadou Ba di jàppale Amadou Ba ak Maymouna Diagne mi nga xam ne moo nekk euh, coordinatrice AFAP ñu am initiative jàppale soxna yi ci euh, ci transformation céréales local fruits et légumes jus euh, eau de javel yooyu jël seen moyen boobu pour jàppale askanu jigéen ñi loolu ci la ñu tàmbalee woon mu ñu lëkkaloo ceeg sunu soxna sii nga xam ni macha allah gàcce ngaalaama Sénégal ñëpp xam nañ ko Macky Sall recevoir na ko trois fois ndax lan moom daanaka liñ naan wëy laago lañ ko lañ koy tuddee waaye tey wëy laago bi mooy mooy mooy formé ñi nga xam ne ñu ngi ni cocc moom moo leen di formé kon euh, euh, loxoy wala tànkam moo laago waaye bopp bi li ci nekk laagowul moom mooy joxe xam-xam fi toll nii ñu ci kontaan wax di ko di ko sant bu baax macha allah ah. Euh, parce que di di moog naataangoo bi ñu àndal. di gën a nag ji ñaaxaat rek di soññaat Aysatu vraiment dafay def benn produit boo xam ne c'est politique autrement la ndax politiciens yi fi doon nekk dañ fiy ñëw 2000 francs t-shirt xartum nit ñi dem tàccu salaamaaleykum maaleykum salaam xoolal mu pare ñu jeex wala ñu jël benn 100000 francs jox la nga séddoo ko téeméer téeméer junni dem sa yoon Aysatu non bëgguma loolu. dama bëgg rek créer base fii au niveau de Thiès pa waa Thiès laa mais euh, base boobu dama bëgg samay jigéen ñi nga xam ni ñu ngi wékku ci man dama leen defal formation.

dina la jox maanaam douze mille nangam nangam nangam nangam kon loolu ay Fall yor na ko fii téye ko fii biir Thiès mais nag du ñu commencé trois naan deux ni un dañu commencé ci benn ñaar ñett démb la ñu commencé formation ba ci kattanu suñu borom ci mbaaxam dinañu àggale quartier par quartier ñi demoon groupement par groupement Aïssatou Fall taxaw na ak may a jaam waa AFAP pour jàppale askan wi. ñuy ñaan nag yàlla message bi bu fekkee ni président amul ba dégg na ko ndax xam ni ki ñuy wax Aïssatou ki ñuy wax Maimouna Diagne wa afab ñi ngi ci ginnaaw ñi ngi koy liggéey liggéey bu mucc ayib mën na leen bàyyi xel ndax seen bopp la demal fi seen kon président ñi ngi lay ñaan yàlla bu ni dégg message bi dégg nga ko Aïssatou Fall da nga leen jàppale jàppale waa AFAP nga xam ne yow la ñuy liggéeyal xam nga pour sa euh, ñu élire la en 2024 ci premier tour asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. taan rek Aïssa dafa yàgg def lii Aïssa du rek dafa ko fan kii daf ñoo yàgg ci suñu kii dafa jël ay conteneur di duggal sañ koñ bi guddi lay joxe kenn du ko yëg da lay tedd sa néeg rek ñu fëgg la mën ay sarfaal moo dafa joxe du amu kii lu léegi laa duggee ay sarfaal nag lu mu def mérite na ko na ko mun na ko waaw ñu yéene ni ko tamit lii yàgg na def nañ formation bu pour affaire bi ñuy yoree xaalis ba ñu kii moom lañ jëkk a def man mii toog nii def naa formation man def naa kii caakli bi ak kii ñetti at ban ma jox sama diplôme so amul moyen nak do def ay sar nak su gindee di dañu yox jom rek ak ki man day sar faal lu muy def kenn mënu ko fay dañ ko jàppale no nek ci ginnaw tay ak suba ginnaw suba wala ba dem ci président amadou ba premier tour deuxième tour ay sar fu mu jàpp foofu la ñu ñu koy dimbalé bu ak bëcëk suñu xaalé ak suñu doolé ak ak mhm. lépp dañuy mukk koy dañ koy japp ak ñaan jeex na toog xel rek jeex na waaw lañuy japp suñu suñu rak mhm. suñu rak bu ñu mhm. defal te kenn du yëg ñu kenn du ku la biir wala amul lu mu deful amul lu mu defal ku bëgg njaboot ku bëgg rakam ay maga ay rakam ay jigéen ay ay jabaram ñëpp kay amul ku mu kii. merci. Aysata Fall ak sama jëkkër ñoo bokk ndey ak baay man Aysata boo leen ma laaje damay sawar si moom parce que Aysata Fall baax na xolam rafet na mën na solidarité acca lu mu ñàkk rek ay mboqam ñoo ko ko xañ barke yonent bi te li may wax am na ñu ko seede fii acca bëggul kenn xiif bëggul kenn mar bëggul kenn rafle acca lu am mi ngi koy. dimbalee nit ñi gis nga maire Sow li mu wax dëgg la parce que Atia day wàcc ay conteneur man maa koy séddale day tëdd ba guddi mu woo ñu dajji ko si guddi gi da koy dajji si guddi ne ma dugg leen Atia bu may wax si moom sax damaa feebaroon de waaye in faut ma jóg parce que lii munu ma koo bañ a ñàkk woon bañ a ñëw parce que nee na diw bu baaxee mbokk yaa ko wax. kon Aysata ñun xam nañ li ñuy wax si ñoom yaa ngi dégg li meer saa wax dëgg la na Aysata heure buy jógee France day wàcc ay conteneur di wàcc lépp man maa koy séddale man. Aysata avant muy def lii avec la njëkk a ubbil sunu biir kër biir kër baayam avec la njëkk a financé xaalis ne liggéey leen avant muy def lii day dox si social day dimbaliwaate man loolu laa xam si moom barke yonent bi loolu laa xam si moom. waaye Aysata nag sàcc ko da koo doon ndax Fatmata Diallo mooy yaayam Puneel Fall mooy baayam ndax Fatmata jàlloo fii ñëpp a ko xam si politique ñoom day xuj a xool ñoom ñëpp xam na ay kaar la daan gaare di dagg ay tisi kon accaa tey bu waxee ne dinañu dimbali dañuy dimbali ndax da koo sàcc si yaayam muy meer Diallo muy jigéen ju baax sama goro bu baax yal na ko yàlla indiwaat ndax lépp nag moom la. ñun xanaa avancement ak ànd ak moom rek ba gunge ko pale biir pale si Amadou Ba. ñun loolu lañ xam si moom. xanaa kontaan rek man démb ñëw ma woon waaye tey laa ñëw man tey lii ma fekke doy na ma te dal na sama xel ndax ku la dig ndékki bu la nee di nga reer di nga reer ñun ñi ngi si ginnaaw accaaw ba géej gi fer ba gunge ko pale incha allah bu neexee yàlla du duñu wor accaa ndax accaa ndooruñ ku ñuy wor man dama kontaan accaa faal dañoo sagal sama xol daa sedd si moom waaw sentiment bu yaatu sax parce que dafa doonoon suñu mbébét ñu ko doon waxtaane ñu bokkoon ci suñu yéene parce que xam nga 15 ans boo ko def social di ko nëbb kenn yëgul 2018 ñu ne nañu ñu mouvement bi ba tey nii ñu nekk ci ci la ñu bëri doo ko yëg mais li li ci ginnaaw loolu lépp dañ doon def loo xamante ni nit ñi daanaka ñu ko maire bi waxee da ngay fëgg da ngay tëdd rek ñu fëgg ne la aca daal di dem du kenn yëg kon bu ñu demee nag tey ba di ko fësal ba def ko ci Cité Lamy bay génn di dugg ci yeneen quartier dañuy dollee santaat yàlla daan na alhamdulilahi alamin di ko remercier nomination yi mu am daf ko mérité

ànd ak ay kilifa nag yu nekk ci ginnaawam ngemb ko kenn ki nag moom moo ci gën a fës mais nee na jarul may tudd turam mais ñu ngi koy wax ne ko rek moom ak a jaañ bi nga xamante ni moo jiite AFAF seen lëkkaloo ñoom ñaar ñun lim ñu santoon muy suñu mission ci seen diggante ak seen diggante président Amadou Ba pour gunge ko ànd ak moom yóbbu ko pale teg ko ci siège bi incha allah loolu mission boobu ñu ngi ci guddi ak bëccëg suba ak ngoon te duñ ci tàyyi mukk nag parce que ci ay mission rek lañ ne moom lañ jox suñu nopp ndax moo ñuy jàppale parce que xam nga nit koo xamante ni da nga nekk bitim réew di liggéey jël li nga xamante ni mooy sa ñàkk di sa salaire nga liggéey ko sa bopp wëlbatiku ne lii ma am dama koy jël di ko dugalaat ci biir askan bi bari nañu fa nekk ah. yaa a des millions de sénégalais ñu nga fa mais est-ce que gis nañ fa benn wala ñaar ñoo xamante ne mën nañ leen citer dañuy liggéey jël seen propre argent di ko dellowaat ci askan tey boo ko doon wër fii yaakaar naa fii bëggee bala ñoo trouver kenn dinañ sonn kon tey moom bu volontaire di def loolu yaakaar naa ni képp koo xamante ni yëg nga loolu nangul ko ne ko damaa bëgg a taxaw pour ànd ak yow war ngaa mën a gëm ni réussite di ko ci am. waaw parce que loolu moom euh, xel mu dal lañ ci am. waaw parce que sincèrement parce que ñi ñu ci jot a waxtaan ak ñëpp dañoo dëggu ci lii nga xamante ne dañ koo tënk ak ñun ba pare nag wane ci jom ak fulla ak fayda te koo ci waxal ku ne rek daf lay won ne la maa la gën a bëgg te loolu mooy sens bi parce que naxaate dafa xewi te koy àndal ci lu dul dëgg da koy xam moo xam mu wax la ko wala mu bañ la ko wax mais nag boo ñëwee fekk ay nit di dox ci dëgg fekk ki ko jiitee di dox ci dëgg yow nga ñëw wan leen dëgg boobu maa leen ko gën a ñeme kon dañuy delloo santaat yàlla bu baax waa liggéey bi moom kontaan rek waaw kontaan ba pare di remercier suñu formatrice yi ñoom ñaar jaru sax may jaat seen tur parce que avant ñuy ñëw fii euh, disponibilité bi ñu ma won ak niñ ma accueillir vraiment man dama mujj woowaat présidence sax ne ko ñii dañoo baax parce que ñii mësumaa gisante ak ñoom mais ku ciy wax ak man day mel ni daf maa xam téeméeri at comprendre bi mu defee devis ba pare def ne ma demal jënd matériel bi ma ne ko non duma du ma jëndi il faut ma ànd ak yéen moom mee laa mujj a àndal ci marché bi gis ngeen ni mel mu ànd ak man ci marché bi ñuy dem magasin par magasin magasin par magasin bu bàyyi temps bépp ànd ak man ñu régler matériel bi tey ba fii ñu yegg si ñu dikkaatee produit bi ñu doon wax mu nekkoon suñu rêve tey ñu liggéeyal ñu ko teg ko suñu kanam ñu koy gis vraiment dañ leen di ñaana yàlla suñu borom ñaan boo xamante ni am na commencement mais amul fu mu yem yal na yàlla wéral seen i cër yàlla guddal fan yi yàlla yokk xam-xam bi defal leen jàmm ak sutura ak mbooleem ñi nga xamante ni tam ñu ngi teew fii di ànd ak Aïssata Fall ñun ñëpp yàlla boole ñu ko defal ci barke yonent bi waaw parce que mbégte laa ci am sax ñoom ci message bi waaw li tax mbégte mooy dafa bokkoon ci sama yéene ndax dama bëggoon doon ñaan yàlla ñu dem ba toll foo xamante ni dañuy demal seen bopp yàgg naa leen ko wax nag di leen ko junj ne leen tey am ci yeneen côté yoo xam ne dama fay dem fekk ay jigéen ñoo xam ne dañoo dem bay demal seen bopp ma am yéene boobu ñoom ñu toll dimension boobu kon tey bu ñu ñëwee gis bunt boobu tijjeeku taxaw ci suñu kanam vraiment demal seen bopp boobu dama naa mais ñun ñii sa dañuy ci sóobuwaale ànd ak ñoom pour gunge leen ci pour ñu mëna avancer ag fi ñu bëgg ag comme niñ ko daan gisé ci biti nu ko raw lañ bëgg mu amé fi waaw ñu gëna a fas jom gëna xam ni ñi am fële ci biti di doon ay jigen doon ay responsable ci yi lañu jaar wala yu ko gëna metti mais gëm-gëm biñ ci am ak té biñ ko té motax yalla jappalé leen ci parce que yalla suñu borom lo gëm rek moom lay jox li nga gëm muy dëgg ci yow nek sa xol mom la lay jox mo xam nak dina la jëriñ wala du la jëriñ mais lu baax moo jar a gëm moo jar a bëgg te mooy lii ngeen tiim lii alal la joo xamante ni alal ju lew domm la ci yéen kenn du leen ci topp kenn du leen ci fëgg te fu ngeen jaar da ngeen di siggi yéen a ko liggéeyal seen bopp kon damay ñaan ngeen téye ko mm-hmm. ba ki nga xamante ni moo ñu defal lii mu kontaan ci ba defal leen leneen ak leneen ak leneen parce que fii ak mu ngi am gis di teg bëtam xam ne avancement mu ngi am man leer na ma ni fi ngeen bëgg a àgg da ngeen fay àgg te yàlla na leen fa yàlla àggale waaw ok jërëjëf allahumma inna nas'aluka bi haqqika wa haqqal haqqika wa bi haqqi juudika wa karamika wa fadlika wa ihsanika ya hadimal ihsani ya man ihsana wa fawqa kulli ihsan ya malika dunya wal akhirah ya salihil wahda la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam tabarakta wa ta'alayta ya zal jalali wal ikram allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tawakkaltu wa samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim